li may njëkk def moy sante yalla mais aussi euh, sante euh, ñi nga xam ne ñoo def teraanga bi ni moy l'ensemble des éleveurs du Sénégal et sans exception li ñu def fi tay lu tax l'ensemble des éleveurs du Sénégal moy ku ko ci def bëgg nga ko waye ku ci def aussi bëgg nga ko donc c'est le moment ci touru président de la République son excellence monsieur Macky Sall me remercier tous les éleveurs du Sénégal pour geste bu rafet fête. parce que comme ni ngeen ko xamé président de la république day dans ben région mu dem fofu def fofu li ñu journée nationale de l'élevage defagum na cinq éditions ren mu ne damay dem dans la région de Durbel. dans le département de Mbake et plus particulièrement dans la collectivité territoriale de Kahel Nous avons organisé la journée de l'élevage ci le département de particulièrement à Kahil Kahil président de la république dafa wax sénégalais commune rurale ak euh, commune urbaine ci nga la territorialisation des politiques publiques mais aussi ñu promouvoir l'équité territoriale Nous une façon pour moom pour commune bi ak fo mën di nek yow ci rew mi nga bok man nga un jour mën a organiser événement bi ren dana tax commune yi fi nek yëpp ci Sénégal mën a xalaat ne ëllëg man may organiser donc franchement c'est une façon de façon la bo xam euh dafa bokk euh, liñu nan naan euh, kàddu bi muy wax mu deppok jëf bi muy jëf de façon vraiment résumée loolu moy li nga xamné mom mo wundu ñu choisir ce site là mais Santé aussi et j'en profite aussi ci président de la république surtout ma sante chef religieux la région de Djourbel, mais particulièrement le calife général des Mourites. lu Makoy sant wax président de la république tant na pour abriter journée bi def bismillah parce que ki ñëw sama dom la ki ñëw sama talibé la ki ñëw ci kër gi la bok ba paré nak mu né ay ay ay mu ne kenn ku ne na takku def kémtu lay kattanam pour que fépp fu président doon organiser journée de l'élevage journée bii di mu dàq ci accueil mu dàq ci teral mu dàq ci lépp donc wax dëgg fa yàlla dañu rafetlu euh, taxawaayu chef religieux yëpp mais particulièrement le khalife général des mourides